bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyu bokk yëpp taalibe murid yi ak jullit yi ci réew mi yëpp dafa mel sax lii occasion la ci man ndax damaa xëyoon dikk di seeti Serigne Sidi ndax Serigne Sidi dafay sama wëllëre bu yàgg ñu ko xam depuis mille cent cinquante cinq ñoo ngi ànd sama digg ndax moom waxoon ne damaa bëgg nga ñëw ci kër gi xam ne Serigne bii moo ko Sëriñ Fallou ñooyam ci yow teyit koo xam ne xaritoo naa man ni nga xaritoo moom amul amuloo ko feneen kon nag ma bëgg nga ñëw jàppale ma ci bu fi nekkee nga nekk fi suma ma fi nekkut moo ko suñu bokkee nekkit gën a baax ba loolu moo sabab suma digg sëñ bi mel nag ñu bari sax boole naa ci loo xam ne dama ko bëgg a leeral ñu bari dañuy wax maa moom ku mag di ko wax saana ci grand place yi di ko wax fu ne bëgg ñëpp xam ne nag ba ma ko xamee ba léegi mm. mag laa ko def mm. mooy sama mag nuy mm. ànd xëy na may na ma ci boppam sax loo xam ne moo tax ñu bari defe ni ma ma ma maa mag wala ñu di ñu tëkkale waaye mooy sama mag suñu blaat nag moom jëmm la joo xam ne ju yomb waxtaane la ndax nit la koo xam ne kii ku ne fàng la daana wax ne bu ma juumee ñu bari juum keroog discours bi mu njëkk a def bi mu toogee fii loolu la ci jëkk wax noonu it la doxee ñëpp daana toog ba guddi ñu ne ñëw ruuyu ko daana toog ba guddi moom ci boppam mu ànd ak jëmmam ñëw fëgg ma toog ak man ci mbir mu muy laaj te xam naa ni noonu moom ma ko defee da koy defee ñeneen moom ku yomb àndal la nag waaye ku jafe àndal la ndax nit ku dëggu mooy li mu bëgg nit ku ñàkk fulla it waxu ci dara dafa bëgg li nga koy wax doon dëgg te it li nga koy wax di loo xam ne lii lu mu ko seet seet du jif lu loola hmm. loolu doxi nit lan doon dox bari na lu ma daan wax loo xam ne ngi sax hmm. ñemewuma ko wax hmm. ak foo xam ne àggale woon na ma fa ci boppam foo xam ne sax dafa jàpp ne ëpp ëppoon na ci sama digg ak moom waaye lu ci ne moo ma ko may te mosu koo nangu waaw daana ma dénkit ndax daa dox ba sës ci mbir mu ne ma nangam lu ci sa xalaat mu wax ko ko mu ne ah sëñ naam day nit ñi boo leen toppee li la war doo ci def dara ndax lu la war lu am nga laywu la ci génn te boo def loo am laywu la ci génn génn ci kër loo fi yàgg-yàgg doo fi def dara te ne fi ba jógee fi defoo fi dara it dara jaru ko loolu daanaka wax ku xamoon addina la nag boo masaa ñëw wax ko dara boo daanee lee mu ne ah wenn lay daal pàq la hmm. naqarim xel daal yëgut ci waxi lay yow dong te yeewu <laughs> nañ nag bañ si ka ca des noonu daa doxe ci lépp ku baax ku amuk taalibi ku bëgg sëñ Tuuba hmm. ku xam ne kii wax dëgg yàlla sëñ Tuuba rek ku mën a am doom ju mel ni moom hmm. ba tax na loolu rek laa xam ci moom muy ni ngeen ko xamee ma xamee ko nii rek du daa wax naan man du ma yëlifantu du ma jélloo du ma du ma dox guddi loolu lépp xeeti doon doon lu la mm-hmm. loolu daana ko wax te di di ko tere it ku mu jaxasool ko mm-hmm. du yilifantu daal mm-hmm. dama yilif bu wér mbaama ba duma ma defantu it diggante def ak bàyyi it awma fi fu may taxaw moom euh, damay def wala ma bàyyi su na ma ne waaye suñ daam boo yoroon ñetti junni ñetti nit ñëw kii diis la soxlas ñetti junni kii diis la soxlas ñaar kii diis la diis la soxlas benn mooy def ma ne ko ah xanaa séddale leen ko mu ne ma cam kon nga yàq ko ndax kenn ci soxlaam fajuwut seetal kam nga mën a faj soxlaam rek nga jox ko ko ñe si toog di nekk <laughs> yooyu daal la daan doxe ci lu mu kenn mënu ko sërfal mbaa nga fexeel ko it ba mu ànt daana waxit naan ku defee ne yaa moom ku defe ne yaa moom danga la xel seen ngaa làmb sa sa poste doo dara. yu bari da ko daan diisoo. waaw ah, di ko waxtaane ak koo defe ne sax waru caa woon a wax ak moom. waaye xeebul xelum kenn. waaw daana wax nag nit ñi de da ci am ñoo xam ne buñ la waxee dara. donte la lu baax la it dañ lay taxawu ci nga def ko. Mm-hmm. waaye nag yow li tax ma mën a dégg yow mooy ba mu waxee dangay ngay may wax rek bàyyi ma ak sama bopp. Mm-hmm. loolu nag laa bëgg. Mm-hmm. loolu it bañu ci woon dara. Mm-hmm. ndax man maa ko jëkk a ndax fekk naa bis boo xam ne bii dañuy doxante mu ne ci sama oto. ma di ko kondi dina ñaar doo nga ci ne. ñu romb ci rond point bi. fekk fi booba euh, civil yi rek fi ne ay dongo. mu weesu ne ñu dox tuuti mu ne lii moom noo ko gisee ma ne ko lii la waaye du mën sotti ndax siwil yor moroom daal ay gendarme mbaa ay ñoom ñoo fi mën a ne mu dañ tuuti tuuti mu dóor ma daa doxam ba yàqoo mën a ñu wàññi ñu wàññi dikk waaye keroog affaire ba amee nga xam ne waa ji dikk na ci sëñ bu xaadir bëgg ko def noonu mu doon def ba ma ba ma dikkee def ma ah sëñ daam de sa wax ja tey jii moom mm. naa ne danaa ko jëfandikoo <laughs> am na dégg saay boo xam ne daal dégg naa dafa dem fa sëñ Abdou Xaadir bëgg koo jàpp def mm. mm. du fàtte dara nag ci loo ko wax ci lu baax lépp lu bon nag du ko déglu moom boo ko waxee bala ngaa daanee mu ne ah loolu di dem yoon ci ma ci xam la bokk <laughs> tawarkar jërëjëf Mbakke Euh, liñ ci doon séenu am nañ ci lu kawe njort